dal leen ak jàmm mbokki internet yi rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy suivre fu ngeen mën a nekk di leen wax way leen di abonné ci seen yu YouTube bi IYAT TV dañuy dikkaat rek ci li nga xam ne moom mooy jàngat yi analyse yi nga xam ne rek yéen a ngi koy faral di am saa su ne wante bi la yoon mën nañu dañuy dellu siwaat rek ci mbir mi nga xam ne rek moom moo xew. peut-être mën nañ kaa tuddee injustice ci ki nga xam ne rek moom mooy kii nga xam ne peut-être ñu bëree baree bëri euh, jàpp nañ ne kat dañoo teg li nga xam ne rek moom mooy aw toor ci kawam dontele kat def na ak deful yoon moom mooy àttee ci jamono yi ñu toll nii kooku nekkul kenn kudul ki nga xam ne rek moom mooy Coro Mandela moom mii nga xam ne nag nekk jabar ci kii di Maxu Mandela mi nga xam ne rek daal nañ koy euh, xam foofu foofulee ca seen TV ñu jot a gis arrestation ci mbir mu nga xam ne rek mu doy waar la en tant que jigéen ba tax jamono yi ñu toll nii mën nañ ne coow li dañagul ba tey ci mbir mi nga xam ne rek xew na gannaaw arrestation ma ci mbir mu nga xam ne rek mu ñaaw a ñaaw la gannaaw bañ ko daal di jéem a yéegloo ci septième étage ci jigéen gu nga xam ne rek dafa nekk jigéen wérul maanaam ku tollu diggante ci foo xam ne rek mën nañoo utiliser ascenseur yi nga xam ne rek mën na kaa yóbbu ba ca kaw taxoon mu daal rek moom mooy l'hôpital di mbir mu nga xam ne jigéen ñu baree bari ñi ngi koy ñaawlu jamono yi ñu toll nii ci noonu nag ci lañ daal di déggee ki nga xam ne rek moom mooy boroom këram di Maxu Mandela ci benn interview bu nga xam ne rek mi ngi ko doon ak kii di Pape Alé moom mii kat jot naa xamle gannaaw nag mbir mi nga xam ne rek def nañ ko mu nekk mbir mu nga xam ne rek mu ñaaw a ñaaw la te xalaatuñ ko woon ci nguuru Sénégal ci jàpp gi nga xam ne rek jàpp na nañ ko ko donte le sax nekkul lu nga xam ne rek lu ñuy bañ la wante kat dafa daal di nekk mbir mu nga xam ne rek jàppin woo moom moo ñaaw gannaaw nag seen groupe boobee nga xam ne rek moom mooy toppuka kaa fay faral di siiwal ci ay vidéo yu nga xam ne rek ay doomi aadama def nañ ko ci ay cas yu nga xam ne rek war nañ koo topp lijjanti ko ba mu leer nekkat mën nañ ne nekkul ne sax moom mii di Coro Mandela moom kase lañu fa jàpp nekkat am na ñeneen ñu nga xam ne sax jotoon nañ leen fa jàpp dontele bi ñu gisee sax ñu daal di fay woon a publier vidéo ki nga xam ne rek moom mooy maître Ciré Clédor ci mbir minimel sax taxoon na kii di maître déposé woon li nga xam ne moom mooy plaintam wante kat bi la yoon tax ñu daal ci dugal loxo ki nga xam ne rek moom mooy Coro Mandela li ko waral nag mën nañ ni jàngat bu yaax bi nga xam ne rek mbokk internet yu bari moom lañ jot a amal nekkat gannaaw taqe ak laale gi nga xam ne rek def na ko ci lii di diwaanu politique bi moom moo ko waral euh, nekkat mën nañ ne groupe bi di topp kaa ay at yu bëree bari mi ngi insister ci mbir mi nga xam ne rek moom mooy topp ay cas di ko topp ba jusqu'à la fin wante kat ba ñu gisee kii di Coro Mandela rek daal di commencé di dugal loxoom ci fii di Sen TV di tas li nga xam ne rek moom mooy ay xibaar ay information yu nga xam ne rek peut-être ñu bëree bëri dañuy jàpp ne loolee kat arrangé wul nguur tax ñu daal di koy képp daal di koy téye ci teewin wa nag ñaaw gu mu ñaaw tax na ñu baree bari daal di siy dellu si gannaaw moom mii nga xam ne moom mooy Coro Mandela jël si guñ ko jël si te gisuñu benn benn convocation bu nga xam ne rek jëbbal nañ ko ko ci mbir mu doy waar mu nga xam ne sax war nañ see def jàngat bu yaa gannaaw nag bi ñu daal di yëg kënekat euh, l'observateur moom publié na kënekat jox nañ li nga xam ne rek moom mooy benn convocation kii nga xam ne rek moom mooy Coro Mandela di mbir mu jaaxal ñëpp lan moo tax mu nekk mbir mu jaaxal ñëpp ndaxte kat liñ xalaat moom mooy ne ñii nga xam ne ñoom ñooy waa Lobs fan lañ jëlee info bi nga xam ne rek moom moo tax ñu daal di téye ki nga xam ne moom mooy Coro te muy convocation bi te moom mii nga xam ne moom mooy nday mbil gi wala sax jëkkëram moom amul benn xibaar benn information buy wane ne kii di Coro Mandela daal di nay jot li nga xam ne rek moom mooy convocation mbir mi ni mel tax ñu bëree bëri daal di xëy dal ci kaw lob su posé ko ay question yu wuute wuute nekkat nañ wax fan la jëlee information boobee mbaadu li nga xam ne rek nit ñi dañ koy wax dafa far mujj nekk dëgg nekkat ñoom dañoo nekk ak ay alliés ak ñi nga xam ne rek ñoom ñooy état ba tax information yu bëree bari bu fekkente ne day faral di génn war a dal ci ñi nga xam ne rek ñoom ñooy kujje politique gi ñoom ñii dañ si am accès cent pour cent accès boobu nga xam ne nag am nañ ko si tax ñu daal di génnee l' information bi ci ay xibaar yu nga xam ne rek daal di nañ koy jot nekkat ñoom ñii publier nañ ko avant ñuy dem di jëli ki nga xam ne rek moom mooy Coro Mandela mbir mi tax jigéen ñu bëree bëri xam ne moom mooy seen droit nekkat àq ak yelleefu doomu aadama rawatina àq ak yelleefu femmes yi nga xam ne rek dañuy liggéey di daan seen doole saa su ne bi yoon nekk mbir mu nga xam ne rek dafa gën a ñaaw rawatina nag jigéen gu nga xam ne rek jigéeni wérul la maanaam ku nga xam ne rek da ngaa diggante ñu di la pamti pamte di la def mbir mu nekk te loole waroon a nekk loo xam ne dañ koy teg ci suuf donte sax xam nañ fi jamono ji toll wante kat ci bêtise bi mu def nga daal di koy yar orienté ko ba beneen yoon du def li ni mel wala sax ñu daal di koy néggandiku néggandiku ko ba xaar ba yàlla may ko jàmm maanaam ba yàlla muccal ko ñu daal di topp kaa bi nga xam ne rek moom moo waral ñu daal di koy tëj ci kaso bi ci jamono yi ñu toll nii wante kat mën nañu mbir mi ni moom dafa mel ne suñu justice xamuñu ko parce que ñàkk juste dañuy jàpp ne léeg moom mooy waral mbir yi ni mel ndaxte gis nañ kaa bu ni mel ci ki nga xam ne rek moom mooy Ndeye Khady Ndiaye moom mi nga xam ne nag moom mooy borom salon Sweet Beauté bi nga xam ne rek gannaaw bi ñu ko tuumaalee ci mbirum Adji Sarr Ousmane Sonko gis nañ moom mii gannaaw bi mu yoree doomam pour nag juste war a jàkkaarloo ak moom ak jël si ga nga xam ne rek waroon nañ ko ko jël si pour nag mu daal di dem fa séenee wuyu ji tribunal gannaaw bi mu yoree doomam mën nañ ne pomti pomte nañ ko def ko mbir mu nga xam ne rek mbir mu ñaaw la ci jigéen gu nga xam ne mi ngi yor ab liir bu toy xippu bu nga xam ne sax prématuré la maanaam dese naa mat ba taxoon mu ko daan sax boote kanam wante bañ koy si xooluñu si Masamba xooluñu si Mademba en tant que réew mu nga xam ne nag dañ ne démocratie moom moo fiy daw waroon nañoo mën a xam ne genre mbir yi ni mel waroon na fee jeex bu yàgg kon nag bu ñu gisee wat si watis maanaam répétition kon nag du nekk lu nga xam ne rek lu jaaxal kenn la lan moo tax du nekk lu jaaxal kenn ndaxte gis nañ ko gisati ko te Olof Njaay dafa wax ne nit lu mu miin yàpp ko ba tax jamono yi ñu toll nii jàpp gi ñuy jàpp doomu aadama yi ñu si bàyyi xel kene kat kii mbir mii la def ba tax ñu jàpp ko ndaxte kat dem na ba booy ci seen i bët dem na ba booy ci seen i nopp donte le sax kiñ jàpp dafa nekk ku nga xam ne rek moom moo tooñ bu fekkente ne woon nag dañ koy def ci li nga xam ne moom mooy avec sérénité mën nañ ne kat képp kuñ jàpp doomu aadama yi danañ si tirer leçon te danañ xam comprendre que ne kii li tax ñu jàpp ko bêtise la bu nga xam ne rek man mii xalaatuma ko def xalaatuma koo répété ndaxte kat yoon wi mu jaar bu ma fa jaaree boo amul sens mën nañ maa jàpp comme ni nga xam ne rek noonu lañ ko jàppee mbir mi ni nag mën nañ suñu justice dafa mel ne bàyyiwu ci xel moo tax buñ ne xat gi lay na rek ñu daal di jàpp doomu aadama yi fat ci biir kaso yi loolee kat nekk lu nga xam ne war nañ see bàyyi xel bu baax a baax kon nag justice war naa xoolaat bu baax a baax taxawaayam donte la ñun si suñ jëmmi bopp ñuy ñaan mu delluwaat gannaaw ci mbir mi en tant que ki nga xam ne rek moom suivi donte le mi ngi toll ci diggante bu nga xam ne jigéen gu fa toll mën nañu sa benn tànk mi ngi àdduna sa beneen tànk mi ngi àllaaxira tax ñuy ñaan justice bu Sénégal na delluwaat gannaaw donte la sax day xaar ba mu am doom mu soog a yeggale li nga xam ne mooy liggéey.